kon ñooñu ñoom waaw xoolal euh, nañ jël Doudou Coulibaly euh, Addis ndax euh, Doudou comme léegi nee dafa am mais Addis li nga wax garaaw na de. science la indi waaw ah, waaw Doudou Doudou tey science juridique <laughs> ah ah non tamit ba pare ay la yor ba ba kii jox ñu Doudou Addis tegal fa sa loxo Pape jox ñu Doudou ñu dégg fii son non tey moom Addis tey waaw salaamaaleykum Alaaji Doudou Coulibaly nga Aïssatou maa lay nuyu. ñu ngi lay fay di la sant. Hmm. Eh, xanaa tey demoo ci télé bu mag ba wal fajiri. non non xam nga sama collaboration ak euh, wal fajiri en tant que chroniqueur dafa jeex. <coughs> Ah! ah. ndax léegi damaa dem ci palier ah Abou Diallo nee tu es un homme <clears throat> Euh, euh, kon ñu ñu ñu ñu fàttali tamit ne incha allah samedi prochain place publique day commencé waat ñu fàttali ko rek en passant. incha allah voilà léegi Doudou conseil euh, constitutionnel. waaw jël na ndogal démb. ndogal bi ñëpp génn na décision démb. la ñëpp doon xaar. mu génn daal di wax ne rejeté décret président Macky Sall bi nga xam ne da doon taxawal. processus électoral en cours. Euh, ah. waaye lu bëri euh, li nga xam ne moo jaaxal nit ñi mooy considérant yeeg yooyu dafa mel ne bu nangoo bu poussé lii am na lu mu leen nangul ku mel ne abu jàlloo jàpp na ne conseil constitutionnel bi dafa doon euh, renforcer wala boo conforter président Macky Sall ci lim ci ci ay sàkkuteefam mooy dëggal lu mel ne dialogue bi Euh, Pour na élection yi may na ko temps mu toog ak nit ñeeg yu ni mel quelqu'un comme Adama Fall nee na carrément conseil constitutionnel euh, am na côté boo xam ne ils ont manqué de courage parce que euh, dañ ñoon def daal mi fig mi raisin léegi nag yow Doudou nga xam ne yaa analyste bu bu mag bi mu nga xam yow noo jàngatee li conseil constitutionnel def démb pas bi mu posé acte bi waaw li ma suivre naa bu baax a baax. Mhm. Abu jallo ak euh, Adama Fall. Mhm. mais ñoom lu ñu wax teguñu ko ci xam-xam. dañ ko teg ci par parloo. <laughs> ndax lan teguñu ko ci xam-xam. Mhm. da ngay xool ñoom ñaar ñëpp ku si nekk dafa am loo bëbë loo bëgg mbëbët ko. waaw muy lan. Abu jallo moom. tant que dialogue bi amul moom du kontaan. waaw moom. xam nga moom militant religieux la te militant religieux bi mu nekk. waaw kilifa gi dafa wax nañ dialogue. waaw moo tax moom moom argumentaire am mm. ak élément de langage am foofu la koy jëmale. dëgg la. Danta Adama Danta Adama. waaw waaw. ñoom dañoo jot gifle. Mm. ah. boo xam ne mbéj boo xam ne. Mm. mbéj du siècle la. mbaj du siècle pa biñ leen turu pa biñ turu dudu kulubali na photo bi ñu ah. bari xamé ñu ko photo bi moy moy ah. moy ba ngay am ki wa photo bi biñ leen turu ah. dudu kulubali pap wa wa alaaji dudu agalil legi wa pes nga ñom ñaar ñep ku nga ko wa xam nga xam nga ku bëggul hmm ken gënu ko tax deug la ku gis hmm ken gënu la nek selma silmaxa hmm xam conseil constitutionnel li mu mhm. c'est du c'est très bon français. Mhm. mais un français de niveau acceptable. pour mhm. n'importe qui. li ñu wax xam nga mooy outrepassé une seen prérogative. ah bon. parce qu'il n'appartient pas dans un pays au conseil constitutionnel de fixer la date d'une élection. Ah, tout le monde est d'accord conseil constitutionnel de koy delloowaat ñi ko mhm. les autorités compétentes il n'a même pas dit le président de la république. Mhm. il dit les autorités compétentes. Mhm. après concertation parce que après concertation on est aujourd'hui le camp on est le 16. on est à presque une semaine du 25. dans ces conditions avons organiser une élection. à date issue mu ne leen date ba ngeen jàppoon nag le 15 décembre nga xam ne c'est mm. dans 8 mois mënta mm. ne mm-hmm. organiser leen ko dans les plus brefs délais dans les meilleurs délais ku ne conseil constitutionnel waaw leeralul wala amul courage mm-hmm. yow yaa amul courage wala yaa diggul mm-hmm. mu ne dans les plus bref délais dans les meilleurs délais la wax waxul dans les plus brefs délais dans les meilleurs délais la wax waaw dans les meilleurs délais mooy dans les plus brefs délais déedéet déedéet déedéet ah, bref délai ak meilleur délai bokkul waa déglu rek après su ma paree yow yaa nekk les meilleurs délais mooy lu gàtt. déedéet lu raisonnable. déedéet mois déglul waa dafa nànk rek. mu ne mu ne encore gis nga bu ngeen demee di def seen dialogue. bref ak mais yéen xanaa déglu leen considérant vingt. mu ne leen bu ngeen demee def seen dialogue. Mm. xoolal mm. Aïssatou Diop Fall maa la fii bindal. waaw vingt candidats yi conseil constitutionnel tànnoon ñooy nekk candidat. Ah! foo ko leneen. xoolal ndax lan xoolal mm. xoolal non la décision elle est claire. Mm. waaw Rose Wardini nag conseil constitutionnel. ñoom Rose Wardini ak ñooñu nag. non dama ne déggoo lu ma la wax dama mm. ne. la décision du conseil constitutionnel elle est claire. Soham Wardini même bu fautee il est candidat. Euh, kii wax na ko démb foofu noonu si plateau boobu dañ ko daggaat ñu xool. Euh, Bassirou Fofana. même si même si elle a faute bu rëcc la. sàcc hmm. bu rëccu la Rose Wardini day nekk candidat. mais loolu garaaw na ci ay ci éthique. voilà vingt candidats yi la waaw. vingt candidats yi. maa la hmm. wax bindal signal na ku nekk wax foofu nga dagg denc. Hmm. vingt candidats yi ñooy jàll. Sonko du bokk. Karim euh, Wade du bokk. Jomaay day bokkaat. day bokkaat ñi mm. vingt candidats yi ñooy dem élection loolu wax nañ ko mu leer mm. nañ waa conseil constitutionnel mm-hmm. et que à partir du 2 avril xam nga bu mm. ñu élection yi le 10 mars waaw euh, Macky Sall dix jours quinze jours yu muy nekkaat président en attendant la transition mm-hmm. c'est pas grave mais ñii liñ ko mayoon parce que biñ ko mayoon liñ ko mayoon xam nga mooy lan ñu demee 15 décembre. mais Doudou loolu yokk mandat la may ma rek man maay daaneel rek après parce que li ngeen wax du xam-xam li nga wax ni léegi 15 bi ñuy may fan lañ koy tek tas day mandat bu non non ma la wax la wax 10 mars la wax waaw 10 mars moom dafa wax ne mën nañ ko may 15 le 10 mars bu ñu voté bu ñu voté mais fan ngay tek article fan ngay tek article fan ngay article 31 de la constitution du Sénégal qui dit que le scrutin de l'élection présidentielle mhm. doit avoir lieu 30 jours francs au moins avant la date d'inscription d'inspiration du mandat. Mhm. la. Mhm. jurisprudence 93. la. commission nationale de recensement des votes une semaine après le scrutin la wara a joxe kii bi. Mhm. Euh, résultat yi. Mhm. Mhm. ñu guñu commission bi pareegul. ñu jébbal ko cour suprême. cour suprême jébbal ko conseil constitutionnel conseil constitutionnel delloowaat le ko. waaw c'est-à-dire bu ngeen xolé 93 c'est un mois après les élections lañ joxe. résultat yi. dina mm-hmm. koy fàttaliku. dafa amoon ay perturbations ay recours la benn affaire dama yu amoon ci bureau de vote ci recensement ma rek su ma yeggalee après ngeen kii. waaw ñëwal argument sànq ngeen wax tegu leen ko woon. non non mais mais kay ñëw la 15 yi ngay yokkal Macky. 15 yi ngay yokkal Macky rek man laa bëgg man sax waxuma lee mais 15 yi nga koy yokkal. su ñu defee élection le 10 donc de deux kenn waru ci yokkaat daray président pourtant combat le constitution le 2. conseil constitutionnel le 2 conseil constitutionnel le 2. considérant 14. considérant 14. considérant que la juridiction constitutionnelle a déjà décidé d'une part que la durée du mandat du président de la République ne peut être réduite ou allongé au gré des circonstances politiques, mm-hmm. quel que soit l'objectif poursuivi mm-hmm. que le mandat du, du, président de la République ne peut être abrogé en vertu des dispositions de l'article 130 précité, 103 précité, que la date de l'élection ne peut être reportée au-delà de la durée du mandat, mm-hmm. que, d'autre part, la loi attaquée introduit dans la Constitution des dispositions dont le caractère temporaire et personnel est incompatible avec le caractère. La durée du mandat se limite au 2 avril est-ce que dañ ko dañ ko bind. mais la durée du mandat kay la wax. ma ne eh xoolal waaw waaw Doudou. na ma wax 2 avril fan lañ ko bind foofu. non non mais xam mais la moom la gars di combat di wax le 2. on partit du 3 nekkatul la candidat yëpp wax loolu la tax ma la wax waaw ce conseil la wax parce que dama ne dañu liggéey. bi bindul fenn 2 avril. bindul fenn dara. bindul dara waaw bindul fenn dara. waaw waaw ñëwal ñëwal